Euh, gis naa ne événement bu am njëriñ la bu baax tamit parce que jeunes yi dañu am occasion léegi euh, wax ci seen euh, passion ci ak liñ bëgg def ak tamit partager ko ak nit ñi nit ñi xam ne que jeunes yi ñu ngi liir ba tey bàyyi ñu dañoo changer méthode rek ñu bëri ñu ngi dem ci numérique bi mais ñu bañ a fàtte ne Euh, livre papier bi aussi dafa am njëriñ waaw c'est une première te loolu moo si neex euh, parce que amuñu mosuñu am salon bu mel nii jeunes yi mën ci exprimer wu mën ci wax mën ci euh, voilà wane exactement ñoom lan lañ mën voilà ak ci lañ lañ nekk aussi parce que mag ñi dañu fàtte ne que jeunes yi ñu ngi fii te ñu ngi yëngu ci yu bëri te du mag ñi kese ñoo si ñoo si ñoo si ñoo si ñoo si nekk daal loolu moom am na solution yu bëri mais bi gën a gaaw mooy parent yi ñun mii ci affaire ci ñun la war a njëkkee ci mag ñi la war a njëkkee dem ci ñu ndaw ñi euh, ñu jàppale leen ñu gën a xam ne que livre yi am na am na ay histoire yoo xam te ne mën nañ leen ko rap mën nañ leen ko raconter mu neex leen torop euh, voilà ñu leen jàppale ñu di lire ñu leen di par exemple boo toogee nii lépp amoon na euh, léegi il faut ñu wan leen ne que tamit am na et dafa leen di neex ba tey. wolof solo événement mooy. ndaje boo xam ne ñu ngi ko duppee salon international du livre de jeunesse et pour enfants maanaam ndaje la boo xam ne euh, ñi xale yi di bind. ñu am 15 ans ba 35 ans gis nañ fi démb soxna Ami Mbow bu génnee livre am euh, mu ngi am fukki at ak juróom livre mu ngi ko tuddee merci maman merci maman jaajëf sama yaay loolu dafa am solo handicapé la ni ko yaayam gunge muy jàng ba mu am 15 ans. pour mu dellu njukkal yaay mu bind téere beneen bi mooy xale yu bare yu am ay vingt ans vingt cinq ans trente ans def nañu ay ay livres exposé nañ ko wane wane nañ ko maanaam cinquante euh, jeunes auteurs beneen bi maison d'édition euh, de jeunesse et pour enfants yëpp ñu ngi fi xale yi ñëw nañu dajak ay livres yu ñu yu ñu yu ñu gisuloon donc euh, si diiru ñeenti fan xale yi ndaw yi ak ñii di defar téere yi ak ñii di bind ak conteur yi ak euh, ñii di def activité pédagogique ak enseignants yi dañuy daje fii jaxasoo weccoo xalaat ñii di liir ay livres ñii di gëstu ñii di jënd ay liivre et loolu dafa am solo pour ñu andiwaat lecture ndaxte laa da doon wax dëkk buy lire dëkk boobu dafay gagner un peuple qui lit est un peuple qui gagne a euh, reading nation is a winning nation. waaw am na succès man ndaxte ñun dafa dépassé suñu ñor ñun xalaatuñu woon ne xamoon nañu ay xale dinañ ñëw mais euh, xalaatuñu woon ne dinañ ëpp nombre bi ndaxte chaque jour am na ay 400 xale yu ñëw chaque jour démb amoon na lu mat 457 tey am na 402 xale yu nekk yu jóge si si si si si garderie d'enfants yi si si si e, e, préscolaire bi. si école primaire yi ñoom ñoo ñëw eh, eh, eh, tey démb ñoom ñoo ñëwoon aussi ñeneen si yeneen gal garderie d'enfants préscolaire ak ak yaay yoo xam ne si banlieue bi la ñuy jóge donc lu ñu loolu ñu ngi siy sant yàlla et di wan ne xale yi bëgg nañu jàng xale yi bëgg nañu liir lii moo ko wane ñun ni dañuy teg naan xale yi liiratuñu liiratuñu liiratuñu léegi ñun xale yi ñiy bind jeune auteurs yi ñii ñu ngi jóge Louga Casamance jurbel Thiès Saint-Louis ak dakaar mu jaral leen ñu ñëw exposer seen livres donc loolu mooy wane ne xale buy bind livre yaa ngi liir donc ñun ñi war nañu seetaat li ñuy wax mun nañu wax sax xale yi ñu ngi wàññi li euh, euh, lecture waaye xale yi liiratuñu loolu du wax. waaw dinañu am euh, benn benn salon beneen bi di ñëw xam ne novembre deux mille vingt quatre la d'abord Marietou Mbaye bu buñuy wax kenn bëggul. bind ay livres yu bare moom nee na dina gunge xale yi bëgg a bind si ay atelier d'écriture nu ñuy bindee Modou Ba Fall tamit wax na ko nga xam ne moom it bindkat la nee na mun na di gunge xale yi nan la ñuy bindee nouvelle nu ñuy bindee taalif ah ensuite dina am aussi ñoom Véronique Pététin ñoom it dinañ gunge xale yi donc dina am ñeenti activité majeure balaa ñoo ñëwaat si salon novembre 2024 et di ko wax léegi chaque année dina am fii si Sénégal